loo seen waajur duñ leen toroxal duñ leen tuutal duñ leen wax lu ñaaw yàlla mën na ko yàlla nañu ci dimbali ñun ñi nga xam ne duñ ko def wala gënuñ ñi koy def waaye yàlla moo leen nattu yàlla bu yàlla nattoo loolu ndeysaan suma doom bi bu jigéen dafa juddu suma yaay yar ko moo ko jëli woon ma bañ ne bu mu ko jëli mu xaccoo ko ak man dem def li mu bëgg a def indi ko di ko toppatoo lu raw man baayam keroog bi ma koy jël na ko dama koy yóbbu alxuraan ndeysaan ndax man la yàlla wax wax wax théorie ma ma ne ko ah d'accord garaawut keroog bi ma koy jëlaat muy jàngi dama naxanteeg suma yaay waaye li lay wan ne yaay dafay yëkk mu ne ma yaa ngi yóbbu suma sët bi te duma ko gisati suma yaay gisante waatut ak sëtam ba ni génnee àdduna donc yaay dafa foor dafa am solo te ku am jàppa ku am tiyel mu dëgër bul gis tooñam bul gis waxam nga dem liggéeyi di dellu si amaale teranga sa xol bi di fàtte sax na sa yaay génnaat da nga ñëw jox ko fekk doo ko fekk fenn rek nga ko mën a seeti ci bàmmeel bi te ñaan rek nga mën dal na ma ma jënd yére dem pour jox ko suma yaay ma dem ba yegg ba wàcc ba jub kër gi xam ne nekkatul ci kër gi waaye mu ngi ci kër ak dëgg donc ñu gën a fonk way jur yi téye leen bu baax <coughs> sargal leen bu baax ngir yàlla defal ñu jàmm yaa rabbi euh, maa ngi leen di ñëw bàyyi di leen tàggu mais mënuma wax te wanuma leen jàmbaar yi bi mooy doy waar bi mooy jar dix mil mooy poudre bi baax na lool ci góor garab yépp am na bi mooy àndalaa buri magam jëmm bi vingt cinq mille pour hémorroïde fatiguement ak góor gu bugg moom kër gi bii la léegu bi am na ko doon laajte ku woote jël sa commande dinga mën a jënd maa ngi ñaan ci yàlla yàlla na yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar ñun ñiy def bàkkaar yéen ñi deful ñaanal leen ñu yàlla jéggal ñu comme Sénégal nit day mat baax ba nekk juge di balaa ma nit ci bàkkaar diggante ba yàlla xëy na moom amul wala yaayam amul wala baayam mais ñun de ay bàkkaarkat lañu ñu ngi jéggalu yàlla di ñaan yàlla jéggalal ñu suñu way daw doy bi himmati Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu bi barakati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eh, maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne danga am cofeel ci man ak mbëggeel nga am yaakaar ci man yàlla na yàlla uutuma ci yow defal la li nga bëgg kem ni ko bëggee dafa am benn waaye bu ma yónnee message comme man damay liir di tontu di liir di tontu ba yegg si moom bi ma déggee message ma woo ko mu ne ma soxla bi faju na ma ne ko alhamdulillah man dañu ma di wax suma boroom ne ko man ci ndoxam man niw laa sosoo te midd lay doon ci suuf nga ma defaree duma dara waaye yow mi doon dara maa ngi sàkku sa mbaax sa kàttan sa yërmande sa tabe di sukkandiku ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bépp jaam bu am yaakaar ci man ak fu mën a nekk ak ku mën a doon ak lu mën a doon yàlla na nga ko defal yaakaar googu ci man waaye dañu ma tam di ñaan yàlla yàlla yàlla nag ma daggal gàttuk suma noonu yàlla buñ kontaan ci man te yàlla naa kontaan ci ñoom yàlla buñ ma raw yàlla buñ ma jege yàlla naa leen gën képp ku ma noonoo taxaw pour xeex ma lépp loo yaakaar pour xeex ma yàlla ko yàlla damm buy nguur buy alal buy xam-xam buy xel buy pax allahuma aslub bi shadidi mahalika man yuridu salbana wa aglib bi azimi sultaanika man yuridu xalbana wa damdim ala rukni man yuxaawilu dullana wa maziq bi quwa batsika man yatlubu xillana wala takkilna ila anfusina fi xullina wa jullina ya arxamu rahimin ya dal jalaal wal ikram yàlla yal nag ma may sant yàlla ci suma soppi ak suma noon yi yàlla bul ma bàyyee suma bopp yàlla nag ma taxaw yàlla nag ma dimbali te nag ma suturaal te ma bokk ko képp ku ma bëgg képp ku ma sopp lépp lu ma waay yéene ci lu bon yal na ca jiitu moom ak waa këram ak njabootam ak xeetam